naa ñëpp fii laay tàmbaleeg yéen ci yéenekaay yi revue de presse bi dañ koy door rek màggalu Serigne Touba gii di Xaadim Rasul mii nga xam ni la mu woote moo di bi xidmati la mu woote moo di jëf la mu woote moo di sant la ko yàlla ci bis bi yéenekaay bi ne ak cant day maase ak cant nag boo koy def dara wuru laa metti ubbil yéenekaay yi lanu yaakaara ne dina metti waa Touba di mbënd mi di ndox mi nga xamante ni ma nga ca Touba tata yi ne ca Touba bari Bachir Mbacke yàlla na fi yàgg te wér yéene kaay bi ne juróom fukki million la joxe woon ngir mbënd mi taataa yi jógee ca Touba ka jóg jàppale ko état lay wuyoo njiitum réew mi waaw nguur gi laa wax yëkkati lu tolloo 4 milliards ñeenti milliards ci sunuy koppar fas yéene koo def ca Touba fas ne koo def ca ndox ma nga xam ni moo ne ca Touba mbënd ma taataaya ca Touba ngir ñu fas yéene dem wuy ji Sëriñ Touba Xaadim Rasuul ñu fas yéene dem màggali màggal màgg man di circuler di dem fu leen neex te ndox du leen tee yéene kaay bi ne jaaykat yi mën a dem fu leen neex te ndox du leen tee ñoom jàngalekat ya ca Touba jàpp fa nu jàppoon téye fa nu téewoon wéy di lànk kandaar di gën a bañ la nga xamante ni moo di seen kookee ñu yaakaar ne bu fa dikkee rek yàq seen koom muy Auchan yéenekaay bi ne ñoom jaaykat yi lànk ba lànk jeex ña ca Touba kenn gënu leen a bañ waa Auchan ba mu waral sabab Auchan jël ay kaakaam ak i dëbbasam ay bagaasam lépp lu mu amoon yóbbu ko ca Touba mu daal di kaa jël fa seen kaa génne ca Touba ndax gaañu nanguwun ko yéenekaay bi ne manko ak booloo ga nga xamante la waa dëkk ba booloo jaaykat yi booloo ñoom yéenekaay bi ne moo waral sabab naa daw génn ni pëccët laa la wax ñam ay tànkam sunu gaal 24 ne Momar Lo ma jiite OJAB Touba yéene kaay bi ne la mu fësal xam le ko moo di ñun nag moo ne amoon nañ digal de raamoon nañu jëm ci ki nga xam ne moo di xalif général kulu murit Serigne Mountakha Al Bachir laa la wax joxoon nañu ndigal ba nu fas yéene woon jëfe ndigal li waaye daal kéemaan la kéemaan loo gis am na kéemaanam yéene bi ne Serigne ba joxe ndigal kooka Serigne Modou Kara Mbacké lay wuyoo Sikori moom mi Serigne njiital jàkkaraay Ndiaye joxe na ndigal ni joxe na ndigal askan sunu gaal gi yëpp war rawatina ñi nga xam ay taalibeem nu daal di waaye itam jàppale njiitum réew mi président Macky Sall njiital jàkkara yi Serigne Modou Kara Mbacké ne ñi nga xamante nag ñoo bëgg a taal réew mi ba pare jël pouvoir bi dul leen ci bàyyi laa la wax te xam ne kat réew mi képp ku ko bëgg a taal say loxo ñooy tàkk kay Mbàkke kon na képp ku bëgg a indi désordre ci réew mi képp ku bëgg a dëkk bii ma jàmbal jaañ ne président Macky Sall ci jëmi boppam bu mu tiite bu mu jaaxle laa la wax ci alliance bu Sonko Khalifa Sall bii du dara yéene bi ne waaye yeewi askan bi feelu ko ne moom kay bu mu jaam gi dina dog moom kay tàkk gi nu tàkk askan wi tënk leen jàktaang leen ñoo leen fas yeewi a dal sunu gaal coup d'état ne njiitum réew mi moom

képp kuy yëngatu ci wàllum sport jaale képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci wàllum làmb ndax dem gi la Double Less dem yéenekaay bi ne bàyyi Balla Gaye 2 wuy ji na boromam niki dimanche bii nu génn ca Dakaaru Njaay jal Joob ko xam ci Double Less borom élégance ba ak technique ba wuy ji na boromam yéenekaay bi ne di woon champion d'Afrique lu bare bare bare mi ngi bëgg a bari de bari na laa la wax boobaak negi ni wariya delta bii di coronavirus gii di mbas mii ne ci askan wii di sunu gaal gi yéene kaay bi ne chaque jour lu ni faat na moom kay jërta dem waar ndax variant delta li moo def ci réew mi ñëpp ci teg seen bët ubbi yéene kaay ni ki démb faat na juróomi yéene kaay bi ne camion yu na foofee yéene kaay ca ne kaay bi ne waaje sax moo ne taxiwul ab commerce sang la bu jaayoon ba wàcc di ñibbi yéen kaay bi ne camion ba dal ca kawam faatu sur le coup wuy yaay ca saasa mbir mu ni mel ma nga xew boori tàkkusaan 14 heures laa la wax ci samedi bii nu génn yéen bi ne commerçant bi bi ko camion bi fëlee fara yam ña jóg ni dafay yam nag day dakk moo di waa nee nañ wee dootuñu ko nangu benn yoon laa la wax camion yi di dugg sunu dëkk bi di dawaay vitesse ay ralentisseur waawaay dóor daan lanu soxla ci bi par force doolee mbaam amul moom kay na ay dóor daan am ci dëkk bi rek mooy jàmm maa la ko wax dafa am sëy bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam metti na lool nag wax dëgg yàlla metti na trop trop trop trop trop mbokk yi di leen jox dig daje ba suba ak jàmm ak salaam jaagin jëf yàlla na ko yàlla def ci askanu sunu gaal waaw ah mbokk yi dëkk bi doy na waar de bala maa bala maa jàll ma wax leen ab xibaar ka doon yokk ay fees di xawma ivoirien la xamul lu mu doon mooy waa ji doon yokk fecc rek Alexia Kanté condamné nañ ko nag waaw jàpp nañ leen laa la wax moom ak du moom ak soxnaam la woon waaw dafa ubbi clinique boo xamante ni clinique ba kenn reconnaître ko ah clinique yokk ay fees ku ca dem mu jéem laa yokkal soo fes te ñamu ca ñamu yokkal seen i fes ak seen i down ay ay metti leen fa jële fu nu toog jóg ndax mënunoo toog fenn ñii ay euh, fes yu nëb leen ca jële jàpp nañ ko six mois leen ko dóor mois ferme waaw waaw gën koo xam noonu voilà ñu ñëw nag ci kawteefu tey bi kawteefu tey bii ca mbuur la xewe waaw mbuur géej xam ngeen mbuur waay gaa ngi mbuur waay ci jëmmi boppam bàyyi ji daa nekk ca réew ma bàyyi ko fi am ci moom confiance waaye ba ba bàyyi ji dem ndekete booy bi sàcc na caabi appartement baayam dégg loolu appartement bu bu bu bu maabule mooy appartement boo xamante ni faal boo ci dugg yi gis ni appartement bi manqué wul dara dara dara ba bol dara booloo jeex ndekete yoo booy bi man nga ma nga yor caabeem rek di ubbi di ronkot jox nañ nañu aw turam jox nu santam waaye jaru ko euh, aala aala tàmbale es la jeexee aw turam voilà ndekete booy bi ma nga yor caabeem rek di ronkot lu mu ronkot rek génne lu mu ronkot rek génne waaw léegi bi bàyyi ji ñëwee ñibbisi eh, waaye ndaw sàmba rey la ba pare jaare la moo am foofu waaw naka la baay ji ñëw ñibbisi ci jëmmi boppam ci askanu sunu gaal moo ànd ak baay ja papiyewoo papiyewoo maanaam baay ji bi mu tijjee gisu dara loolu da ko yéem waaw léegi baay ji dem porter plainte contre x affaire yooyu noonu mu ànd ak baay ja papier fu papier am mu dem lu ñuy lijjanti mu lijjanti ànd ak paa bi xabar xabar yi moom kay dëkk bi insécurité bi ay ay fekk na lépp mooma waaw léegi ña ko jot a gis ay dëkkandoo xam nga Sénégal moom noppi du noppi lu ñu gis wax ña ko jot a gis daal ni ah moo ne de camion béréb sàngam taxaw na fi heure sàngam immatricule nangam taxaw na fi ndax dëkk dëkkandoo yi ba nuy rañ ay bagage ak di génnee photo ak di génnee lal ak yu ni mel ñoom doon doon doon doon fexe ba am numéro euh, euh, camion ba rek waaw ci loolu. naka lan koo joxe. topp kawiyoŋ ma topp kawiyoŋ ba topp kawiyoŋ ba ba ci kenkaay yëri yow ah ban toppee kawiyoŋ ba ba ci kenkaay yëri ba te lépp nag mi ngi ciy jàpp de moom ay eh, waay waay waay waa ji waa ji doy na waar de déet moom kay doyul waar dong yem ci nag daa doy waar ba pare dëgër fit waaw ki nga xamante ni moo jëndoon ay bagaasam ca réewum tugal xàmmee ay bagaasam ñu àgg mu gis ñeenti lal yi quatre quatre euh, chambre à ya gis ñeenti armoire ya gis juróom benn tabouret gis onze seize gis ñaari fauteuil en cuir gis cinq table gis benn télé waaw gis ñetti placard gis table télé ba gis moquette ba benn moquette gis ñeenti gis juróom-ñeenti tableau daar ak ay rideau ak la mu jëndoon lépp ni saa alal la ngi saa alal la ngi ni ci kërtim nu ne kenkaayri foo ko jëlee mu ne kii joxoñ ni ki yo doom jaa kii ma ko indil lépp moo ma ko jaay waaye borom kenkaayri ba tamit dañ koy jàppale dañ koy tëj ndax association la association de malfaiteurs moom association la rek li nga sàcc ak jënd alali sàcc moom ñëpp ay sàcc lañ waaw ah sama sama téléphone bii ma moom ko mu riir ma dox ba gis ko ci loxol nit mu leer ma ne saa ala damay jàpp ci nit mu wax fa mu ko jële yoon nag xamul loolu yoon moom li mu xam mooy amul diw ci diw laa ko jële nañ la bàyyi segam wax nga fi nga ko jële déedéet xam nga lu ma ama yow mi yor alal sàcc ci sàcc nga kon nan ko bu baax a baax askan bi ci lépp lu nuy jënd deuxième mais nan ci moytandiku lépp lu nuy jënd bagage bu nuy jënd deuxième mai nan ko xoolaat bu baax a baax a baax moo gën a wóor xam naa li ma indi tey nopp dalooti na comme ni ñu koy waxee kaawteef moom saa su ne nopp day dalu seen mbokk seen xarit Fall Dammel di jox du daje suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci askanu sunu gaal ci jëf